asalaamaaleykum mbokku internet ci Bakkan TV dem leen andil ñetti nit ñoo xam ne ñetti ancienne gloire Ousmane Diop Boy Kayre Salloo mais ñetti ñi boo leen xoolee nii ñoom ñett am na lu ñu bokk Boy Kayre bàyyi naa la lu nuyu ba loo leen bokk yéen ñetti ñi. waaw li ñu bokk bi si njëkk mooy ay frère lañu. waaw doon ay doomu ndey. Uh-huh. image image bi ça veut dire beaucoup de choses. waaw kenn démb ay anniversaire lañu woon. Uh-huh. mais tey làmb jeex na. dëgg la ñu sëq nag ay rafet rafet. Uh-huh. ci gën a li ci gën nag mooy en 2008. waaw dañoo bokkoon benn tournoi. tournoi ndeysaan am ku ci manqué nag. Uh-huh. ki ci manqué muy Cheikhou Diène. yàlla ko yàlla yërëm téye ñu. vraiment donc ñu doon ñoo xam ne daal. Uh-huh. Euh, pour jëmmal bés bi. Uh-huh. moo tax tey ñu ñëw fii. parce que yëg-yëg la. ki nga xam ne moo tëgg bés bi. ma bokk ak moom koñ. bokk ak moom quartier. mu ne ma père ma ne waaw mu ne ma bés bi dama bëgg ngeen saf si sàpp. léegi nag. li ma wax mooy li première bi la. mais bu bés baa ah. bëgg naa ñu bëri ñëw bu bés ba ah. dana bëri ay anciens yoo xam ne danañ ñëw takk ay sër ñu yondu Medina ah. jóge Medina dogalee ne arène nationale ñu ko loolu lan wax si lii yéen ñett ñi taxaw waaw xam waxee rek ñun ñëpp wax nañ ndax ñuy samay grand frère loolu ah. comme samay grand frère la ñoom wax ji ñoom laa koy bàyyeel comme maa gën a ndaw man maay ndongo daara bi ñoom daal maa ngi seen daal mais damaa kontaan si ñaar ñi bu dëgg yàlla yàlla rek moo ma tiim ñii dama leen di ñaanal yàlla yàlla ma leen fanu gudd ak wér yàlla sàmm leen sàmm seen ak njaboot ndax samay kilifa doon waaw xanaa kontaan rek retrouvaille bi dafa neex quoi te du rek la uh-huh. ñun euh, à chaque fois dañuy déggante dañu bokkoon deux minutes benn kalaaf yàlla dogaloon jëm ci moom moo ko jël mais làmb di jeex na tey léegi relation àdduna moo fi des uh-huh. te ñu ngi koy rafetal yàlla yàlla yokk daal mais xam naa yow yow moom a waxtaan ak dal lool ndeysaan gis nga ñett ñi ndeysaan ñoo ngi nii di yéeg ndeysaan ñu ngi yéeg dal lool kayre le fils du promoteur léegi rek mois de décembre. mois de décembre incha allah fan lay amee. ça dépend ci sponsor bu koy jël. am na sponsor bu koy jël. am na benn sponsor bu waaj a ñëw. information bi dafa rëy. yàlla yàlla sant bu baax a baax nuyu naa la. maa ngi lay fay naka ko troisième face to face bi laa bëgg a xam kañ la. troisième face to face. waa jàppal ne la.